dal leen ak jàmm ci tas info aboneel ngir dara bañ a laal dal leen ak jàmm ci tas info seenub jàngat bu nit ñi dee wax ci lu jëm ci li nga xamante ne moo di wàllum modification article 87 ngir lu jëm ci li ne moo di jox doole ki nga xam ne moo di njiitu réew mi te jamono ji ñu gàntal ko ñi nga xam ne ñoo di waa Dakar matin ñoom feneen falan fëlli ndaxte ci seen xëtu Facebook tey jii ca lañ ko fa publier ci ni kat désormais li nga xam ne moo ci tegu moo di ñi nga xam ne ñoo di waa gouvernement bi ñi ngi passé ci vitesse supérieure moo di li nga xam ni moo di modifier code de procédure pénale ngir mën a daal di jaar ci foofee ngir dissoudre parti bi nga xam te ni moo di ñii di waa Pastef nekk loo xam te ne bu boobaa dina mel ne métti métti lool ndaxte lii nga xam te ne moo di lii di wàllum euh, parti boobu nga xam te ne moo di kii di Pastef bu boobaa ngir mën a bokk ci ci li nga xam te moo di élection yi ñu jëm muy élection yi 2024 day galfangoo ba boobaa du ko mën a sax a def ndaxte li nga xam te ne di parti boobu buñ ko dissoudre dissoudre xanaa bu boobaa ñu wuti beneen ñu nekk beneen wàll go nga xam te ne aju na ci li nga xam ne moo di wàllum li ah, di gàntal li nga xam ne moo di candidature kii di njiital Pastef di kii di Ousmane Sonko ndaxte ñi li nga xam ne moo di loi bi war na jaare fële ci l'Assemblée gisees na benn communiqué bu nga xam te ni kii di Ismaïla Madior Fall moom moo ko xaatim signé ko loole nag la muy wax moo di retirer lii di projet de loi boobu nga xam te ni mooy suppar ñi ak a laal ak a jéng-jéngal ak a jub-jubal li nga xam ne moo di article 87 boobu nga xam ni moom la war na soumettre ci fële ci nationale gannaaw li nga xam te ne moo di way dialogue bi waaye xam te ne ñoo di way opposition yi opposition bi dañoo fël ci naan kat ñoom li nga xam te ne moo di eh, article suppi kooka laalaat loolee ñoom waxtaan ko ci seen li nga xam ne moo di dialogue ba kon xamuñu lan moo waral ñu daal di ko ci indi moo tax ñoom ñu ne kat duñ ko voté waaye daal terewul li nga xam ne moo di loi boobu daal dina ko ci génne sax ki ko def bind di kii di Ismaïla Madior Fall